jërëjëf kilifa ñu ngi lay ziar bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu kàddu yi kàddu sant kese ndax ñu ñoo xewle sant nañu rek moo ñu mais dañuy dooree sant bi suñu sang bu tedd bi di Serigne Bachir waaye di ko jaaral Serigne Amadou Ba ndax dañu gis ne Grand Yoff tey am ko wax léegi ne asamaan bu wàccee bu jegee da taxaw. da ngay laal ko laal muy demaat ah kon Grand Yoff tey kenn ñu waxal ay agresseur ak leneen dañ naan sang bu tedd daal biir Grand Yoff ku ñëpp di wër tey ñu ngi fi jërëjëf Thierno Amadou Ba parce que li ñuy bàkkee dina rafetlu si mais Grand Yoff dëkku daara la dëkku ut xam-xam la dëkku jàngukaay la dëkku ut si ñaan te ñu faral ñëpp ñaan la ut si. nan ko yàlla nangu te barke boobu yàlla na rox ci grand yëpp ba lu ndaw lu ñuy waxal si ay sikk sikk yàlla na ko yàlla ful mu soppi ko mu nekk mbaax si barke Thierno Bachir ñu ngi gërëm ñi fi ñëw ñëpp ñi dëkk fu sori jóge fii jóge seen dëkk ñëw Grand Yoff yàlla yàlla ñu delluwaat si jàmm ak salaam fekk seen njaboot si jàmm di gërëm suñu sang bii di Cheikh di sëñ Ahmada Si ak ñi fi teew ñëpp di gërëm sous-préfet Parcelles Assainies Thierno préfet lépp lu waxul ak ñu respecté la ñëpp xam nañ ne Grand Yoff daa bëri ay chantier ñëw si zawiya bi yombul accès bi dafa difficile bu ñu waxee ak moom lépp lu mu mën pour dégager voie yi ba ñu accès si biir zawiya bi yomb def na yàlla na ko barke borom zawiya bi fenn loolu rek laa bëggoon sant ay kàddu man ak Thierno bi ñuy ànd yàgg na di gërëm Ablaye Bari ndax moo ma booleeg Thierno Amidou Ba depuis 1999 lépp lu ndaam installé courant maa ko installé mu ne ma depuis boobu 99 am naa façon visa bu nekk pour tukki doucement tukki mu ne ma toogal grand sa loxo lay mucc 99. ma nekk yaakaar naa am lu fi def loo xam ne waa grand sant nañ ñu ko yokkaat nañu ko beneen mandat li ñuy ñaan rek ngeen ñaanoon gàcce bañ ci am mooy ñu yaakaar ci ñun ngir liggéey Thierno Bachir ñu ngi sàpp si yow di ko jaral Thierno Amadou li ñu waa Grand Yoff dénk te mu yaakaar rek ngir dëkk bi soppeek yàlla bu mu tas boobu ëllëgee bu ñuy delloo li ñu dénkoon li ñu dénkoon du am gàcce lu laa woon may wax préfet jërëjëf su ma santee préfet sant naa préfet Dakar sant gouverneur sant naa ministre sant naa président Macky Sall jërë ngeen jëf parce que li ngeen ñu defal fekkoon du seen njàppandal tey xeexoo bii mun naa jafe yàlla yàlla fay leen merci beaucoup jërë ngeen jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu dina wax asalaamaaleykum di jiital ci nuyu bi xalif général famille Omarienne di Thierno Bachir Tall sang bi ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ah di nuyu Thierno Hamidou Bane ak mboolem taalibe yi nga xamante ne teew nañu fi. di nuyu borom casquette borom casquette yi nga xamante ne jël na fi kàddu sax di nuyu kilifa diine yi fi Sénégal bi nga xamante ne am na ay délégation yu bëri yi fi ñëw ñu mën cee lim délégation risque étant directeur de cabinet Abdoulaye Daouda Diallo ñu lim ci également ki nga xamante ni moom mooy Ahmed Benjelou président conseil départemental bu Kaolack nekk également député à l' assemblée nationale di nuyu mbooleem mbokku taalibe yi nekk ci daayira yi ak ñi nga xamante ne ñëpp ñëw nañ fi ngir teewe bés bi bu ñu jël kàddu ci jotaayu mel rek sas la sas bi nga xamante ne suñu ay kilifa ñooñu ko sas en tant que délégué bi président de la République bu ñu jël kàddu dañu jël kàddu ci seen tour di wax ne euh, sas boobu moo tax ñuy def ay réunion ay jotaay ay waxtaan ngir xew-xewu diine yi nga xamante ne dañ koy amal ci gox goxaat yi ñu mën cee taxaw ànd ak service yi nga xamante ne mooy service état pour kenn ku ci nekk dugal ci sa loxo jàpp naa ne nag euh, am na ñu fi wax ne li ñu euh, jëloon comme engagement def nañ ko waaye gëm naa ne am na loo xamante ne des na ñu ngi ñaan rek at yi ñëw yi nga xamante ne set nañ ko comme gàllankoor ñu bañ ko fee gis ñu jàpp rek ne jéem nañu te ñu ngi ñaan sëriñ yi fi teew ñaanal beneen yoon mu gën a yem ah, li nga xamante ne. moom mooy solo daje bi nag duñ ko wax waaye dañuy wax rek ne am nañu mbégte bu rëy rëy ñëw fekk fi nga xamante ne moom mooy xalif général famille Omarine Thierno Bachir Tall mbégte bi nag euh, donte kilifa la diine ñëw la fii waaye mbégte bi dama ne double la ndax ci suñu jàkkaarloo mën nañ ne gën nañ koo gis ndax yàlla dafa dogal nekkoon naa fu ñuy woowee Gamadi Saare ma ñëw fi nag fekk fi ay mbokk yu jóge alwaar doon Thierno taal ak ñeneen ñoo xamante ne wane ma sax ci yoon bi ba ñu déggee ne ah xew-xew bi am na ñii euh, jaataar ñi feneen ñu won ma ne ñu loolu nag te euh, jàpp ne xéewal la ndax comme ñun ñoo doon ñu nekkoon Gamadi di dem alwaar di ak feneen ak feneen di fa daje ak sëriñ bi mu ñuy ñaanal ah bu ñëwee ba fii nag tamit dañuy gën a am cawarte ñëw teewee nekk ci wetam également talal ko suñu loxo mu ñaanal ñaanal tamit li nga xamante ne moom mooy réew mi donc loolu mooy li nga xamante ne bëggoon naa ko jël kàddu ci njëlbeen beneen bi mooy ah, di sàkku ñaan rek ñu ñaanal ñu réew mi am jàmm réew mi am dal ndax loolu mooy li nga xamante ne loolu la ñu sukkandikoo ba programme ak projet yi nga xamante ne nguur gi euh, en tout na ko pour def ko ci réew mu matal ko ñu ngi ñaan yàlla mu ak jàmm te mu nekk njëriñu askan bi yëpp. loolu mooy kàddu yi nga xamante ne dogal nañ ko fi yëkkati di gërëm Thierno Amadou Ba baax a baax di gërëm tamit comité d'organisation bi nga xamante ne boole nañu ak ñoom te vraiment comme ni ko monsieur le maire rek mën naa si lim Abdoulaye Bari. waaye tamit wax dëgg yàlla mën naa ci lim taawam bi nga xamante ne Amadou Ba bi nga xamante ne wax dëgg yàlla euh, euh, xaadiwuñu benn yoon te sonaluñu tamit ndax yàlla dafa dogal euh, ñu nekk ay ñu lewet ñoo xamante ne yar ñu leen ci diine te loolu nag mooy li xamante ne daf ñuy gën a loolu lañ bëgg na am rek kàddu yu gàtt yu yëkkati comme kilifa yi ñoo toog mënuñu xaabaabal ñu ngi ñaan yàlla ñu teew ak ay at i at te ñaan également. li nga xamante ne moom lañu ji ngëneel yàlla defal ñu ko ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax